Ndeysaan mu nga noonu Ndeysaan ñu ngi noonu ci final bi Ndeysaan Moussa Faye Sénégal Sénégal Guinée Bissau Ndeysaan Moussa Faye Sénégal Guinée Bissau ceinture bleu Ndeysaan Moussa Faye biij na sol na bi mbot ko bañ Moussa Faye ndaanaan la Sénégal ceinture rouge Guinée Bissau ceinture bleu ndaysaan Sénégal Guinée Bissau jël na ko yegg nañ ko fu sori waaye xale bi daa mën a bëre Moussa daa mën a bëre ndaanaan la Moussa Faye ndaanaan la Sénégal ceinture rouge Guinée Bissau bleu ndaysaan ñaari xale yaa ngi noonu ndaysaan ñaari xale yaa ngi ci digg jël na ko daan na ko wala déet nee dara xewut wala daan na ko Moussa Faye Sénégal gagné na daan na final individuel bi Guinée-Bissau Sénégal ndaysaan Sénégal ngóor ñaax fàqat na ko daan ko wala déet wala daan ko. Ngor ñaax daan na. Ngor ñaax daan na ko. Ngor ñaax daan na ko ndaanaan la. ginnaaw gi laalut suuf. arbitre baa ngi na. combat baa ngi noonu dox ci diggante Sénégal ak Nigéria ndaysaan Sénégal ceinture rouge ndaysaan Nigéria bleu ndaysaan xale yaa ngi noonu Sénégal Nigéria ndaysaan wallaay jël na ko sol na ko sol na ko dina daan wala déet ndaysaan daana lan ganja faama daanaan la mbot nañ ko daan na wala déet ganja faama daan na ganja faama daan ganja faama daan na ganja faama daan am na ndam actuellement dañu koy bëriwaat ñu ngi noonu diggante Sénégal ceinture rouge Niger centre bleu wala Nigeria. oui Sénégal euh, moom moo sol ceinture rouge bi sànq Sénégal bi euh, gaañ gaañ gaañ PAM dafa daan ab bi bu moo jugé na am na chute mais bi gars yi dafay réclamation souvent moo la ñuy table technique bi dañuy xoolaat situation bi ak bi xool ko ci angle yëpp. léegi bu fekkente ne amoon na combat bu sible woon avant recours bi kon combat bi jeexoon na mais du maa le seen entraîneur gaaw na déposé avant ñuy sible donc dañuy xaar ba gars yi visionné ci vision bi nag ñoom dañu xool ne euh, euh, sud bi dafa simultané donc daan mooy leerul daal simultané donc mooy loo xam ne am ne ay po yoo xam ne bokkul nuróowul. njaax nañ daal waaw njaax njaax maanaam ci voilà njaax dañoo njaax donc dañuy dañuy bëraat voilà c'est bon. jërëjëf dégg ngeen ko leeral bu am solo boobu nga xamante ne indil nañu ko ndaysaan daw na jëli ko suble nañ Gandia Fama Sénégal Niger Nigeria ndaysaan ndaysaan ñu ngi noonu Nigeria Sénégal ndaysaan ñu ngi noonu ndaysaan entraîneur Nigeria bi taxawul ndeysaan lu ne def na ko Sénégal centre rouge Nigéria centre bleu ndeysaan xale yaa ngi noonu Gandia Fama Sénégal centre rouge jëli na ko ndeysaan ña nga fas yéene bëre xale yaa ngi noonu ndeysaan Gandia Fama Sénégal centre rouge ndeysaan Nigéria ceinture bleu ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan Nigéria Sénégal fàq na ko war na ko ndombo na ko ndombo Ganja Fama war na ko Ganja Fama war na ko ndombo Sénégal war na Nigéria ndeysaan dina ko wala déet daan na ko ndeysaan daan na ko xarit baa ngoog daan na ko nee na ko kaay waatal woowaat na ko ñaari yoon daan na ko deux fois woowaat ko lii mooy teraanga teraanga Sénégal jox nga lekk jox nga naan arbitre bi nga dóor ci suuf ñu joxawaat recours ñëwaat nga yelu dóor ci suuf loolay làmb Gandia Fama xale baa ngi noonu am na jom nangu naa bëre ndaanaan la ci wàllub làmb waaye làmb gi oh ndeysaan xale baa ngi ndeysaan xoolal ma supporter yi jóge bitanti ngi noonu toll ci finaalu cent kilos yi Sénégal Gambie Sénégal ordinateur ceinture rouge Gambie bleu lii mooy final individuel bi mbokk yi fii ci arène nationale ndaysaan neuvième audition tournoi CEDEAO jàpp na ko ndaysaan mbëru Gambie bi jàpp na mbëru Gambie bi jàpp na dañoo mën a bëre nag Gambie dañoo mën a bëre dañoo mën a bëre ñoo mën a nee na ko gaay leen ndaysaan daa gaañu Gambie ceinture bleu Sénégal rouge nee na ko déedéet arbitre bi sifflé waat na ndaysaan Sénégal ndaysaan ak noonu final individuel bi final individuel bi xale yaa ngi noonu jàpp na ko lan la nar mbëru Gambie ay ndaanaan lañ ndaysaan ordinateur ndaanaan la moom moom lañ tuddee borom àll bi moom ordinateur ordee ngi noonu ndaysaan ma nga noonu ordinateur ngi noonu ndeysaan xale yaa ngi noonu jàppante nañ xale yaa ngi noonu ndeysaan ordinateur ndeysaan ma nga noonu xale baa ngi noonu ndeysaan ndeysaan na nga jàppanteeguñu ba léegi da ngay lewaatoo ak a xool Fallou Thiar ndeysaan noonu Fallou Ndiaye promoteur bi moo may nuyu noonu borom Ndiaye production ndeysaan ndeysaan waa ji nee na mënatul bëre nee na daa gaañu wala déet arbitre bi sifflé na ndeysaan Sénégal Gambi Sénégal ak Gambi senegaal Sénégal Gambi ña nga noonu nañ temps arbitre bi sifflé waat na ndaysaan compétition baa ngi noonu dox ci finale individuelle bi Sénégal ceinture rouge Gambie ceinture bleue ndaysaan ñaari xale yaa ngi noonu ndaysaan ordinateur Sénégal Gambie bleu ndaysaan xale yaa ngi noonu Gambie Sénégal ndaysaan Gambie Sénégal Gambie Sénégal ndeysaan ordinateur Gambie ndeysaan ak Sénégal Gambie Sénégal ter siar dala aha ndeysaan ordinateur ndeysaan moo ngemboo ngembalo jël nañ tànk ba nañ tànk ba mbëru Gàmbi yi dañoo mën a bëre dara xewut ordi génn na ca ndaysaan ordi génn na ca ndaysaan ordinateur génn na ci ndaysaan ordinateur génn na ca ndaysaan ordinateur génn na ca ndaysaan Sénégal Gàmbi ndaysaan ñaari dëkk yu bëggante ñu ngi laaleen tey Sénégal ak Gambie ndaysaan maa ngi nuyu waa yépp yëpp ndaysaan xale yaa ngi noonu jàppante ndaysaan Sénégal Gambie ndaysaan maa ngi nuyu champion Gambie yëpp commencé ko ci Bébé Balla France Leket Baara ndaysaan ak xale yi nga xamante ne ñu nga fa ñoom ñëpp ndaysaan maa ngi leen di maa ngi koy siyaar moom it champion la ma nga biir Gambie ndaysaan moo tax Sénégal ak Gambie benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar sport moo ñu boole ordinateur Sénégal ceinture rouge Gambie bleu ndaysaan rouge bleu Sénégal ceinture rouge Gambie ceinture bleu ñu noonu ci compétition bi ndaysaan ñu ngi noonu ci compétition bi ndaysaan daan na ordinateur daan na ko jël bu Oh! buuru àll baa ngi noonu ndeysaan ordinateur a ngi noonu ndeysaan ndeysaan macha allah gàcce ngalaama ordi ndeysaan ma ngay saafonteeg supporter yi nee na moom ordinateur ndeysaan ordinateur a ngi noonu